jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan mbokk yi dal nag ak jàmm ci xibaaru làmb ji ñu am mbégte nag di jàkkaarlu ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee ma ci ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. fay naa la soxna Ami ci loo nekk maa ngi sant eh, Babacar yaa ngi nayi gaay ndox na nga béy <laughs> waa kii ah, ñu ngi koy wax ah, Cheikh ah, ah Ndokumane Couture Cheikh ak Nday Sow nekk fële ci mm. euh, Maris ma di leen bëgg di leen ñaanal jàmm ñoom di ay xale yu set loxo lool mm, macha allah mën a ñaw ñaw moom mën nga leen a ëpp tur gën leen a rëy atelier gën leen ko rafetle waaye pour nga dàq ñaw waa Ndoukoumane Couture moom fecca mari su seex ak nday sow loolu moom xel xalaatu ko moo tax maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax dëgg la voilà bu baax ñu dem seetaan revue daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 5 mars 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi. suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb na tey moom xëtamu njëkk la mu ca xëy fësal benn komba la di benn date boo xam ne nii daal xëy na wax na ko muy diggante ki nga xam ne moom mooy Papa Sow ma dëkk ca parcelle ak Siteu ma dëkk ca jàmm gën mu mel ni ki nag combat ba moom léegi leer na date ba daal jàppal Pape Abdou Fall le premier août 2021 la ko fas yéene tëgg buñ ko fekkee te tal ko mooy li nga xam ne nii moom la nu sunu xëy tey wax ko combat moom léegi leer na ci date ba nga xam ne ci la ko promoteur ba bëgg a tëgg keneen koo xam ne moom tamit jamono jooja jàpp na ab date ba pare fas yéene tëgg moom tamit ay combat am muy ka ñuy wax fay production fay nag moom le 27 juin la jàpp mille 2021 bi fas yéene tëgg ka nga xam ne moo di Kara Dollé Mamaya Sibel Bébé Saloum numéro 2 yëglikaay bi moo xëy ñëw ba tey di wax lool ci xëtam mu njëkk keneen koo xam ne nii moom maanaam soo bëggee dégg-dëgg am na ay date wala weer woo xam ne weer wu ko jiga jik la muy Eumeu Sène mu taay si nga yëglikaay bi nee na day mois d'avril Eumeu seen jongante na ci ay combat yoo xam ne gagné def na ko ko maanaam ñetti combat yoo xam ne daal gagné na ko ci mois d'avril moo tax ne yëglikaay bi daal xëy xam le ne daal ëmma day li leer ba leer boo bëgg dégg-dégg moom mois d'avril lu ko jiga jiga jigle wax lu mel ni ki noonu donte am ba xam ne nii moom la war a jonganteel muy Lac de Guiers am na ay combat yoo xam ne gagné na ko ci su sunu làmb xëy wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na tey seq moom ay wax muy mbayang lu mi nga xam ne moom la ñuy wooye la diva ci làmb li nga xam ne moom mooy làmb simple ji ndax mën a way ga nga xam ne da ko cay def yëglikaay bi xëy na tey dalal ko moom nag mu ngay wax daal ci way nit ñi ñëw wala ñu bañ a ñëw wala ñu fecc wala ñu bañ a fecc mbayang daal jàpp na loolu moom loo ci mën a dégg moom ah li am ba des daal moom nekkul loo xam ne xëy na problème la waaye daal xam naa ne bu sañoon moom ah buy way itam loo ci mën a dégg mbooloo ma danay teew ndax loola dana gën a neexal la nga xam ne ni moom lay def yëglikaay baa xëy ñëw tey dalal ko moom mbayang loobu ñu continuer ak bi di sunu làmb mu 2STV TV moom tamit mu nga xëy tey di wax mu ne gars yi dañuy jaxase maanaam daal jaxase gi mooy képp ku ñu gis rek maanaam ngay nekkum góor baraa nekkum ponkal mu yor say loxo dijj ñu jàpp ne mbër nga la ko tax di wax nag mooy ñi nga xam ne bërki dem ñoom la ñu gisoon ca la xam ne nii moo di ay vidéo ñuy def lu jëm ci wàllum dóore yor ay yet ak mel ne ki noonu bekkaay daal ne nañ ci teey parce que nag nekkul ne ku say loxo dijji rek mbërum làmb nga déeréet moom bekkaay mbay gis-gis booba la am ci mbir moomu nga xam ne ni moom la ñu doon wax ba tey mbir moom mooma nag dañ cay continuer dem fa nga xam ne moo di ca Equivox ndax ka nga xam ne ni moom moom daal moom lañ ca xëyoon jàpp ko di ko yàlla yàlla bërki dem muy Gris Bordeaux naan moo yor aw yet wala moom la ñu recruter def ko ab nervi bi Gris nag moom bàyyiwul mbir ya mu sedd ndax ndémb moom euh, ca micro Equivox TV wax na fa lu leer nañ ak micro Lit TV la mu xam ne daal nee na moom Gris Bordeaux kel xalaatul mu naan day dugg ci wàllum violence di ko defal kii wala kële nee na amul benn politicien boo xam ne am nga maqaama amul ko am fitu ñëw fekk ma man Gris doo ma toog nga am dama lay fay ay quinze mille ak wala un million lu mu manti doon naan ma kaa yoral ma sécurité wala nga may dóoreel wala nga may defal mbirum nerf bi Gris nee na loolu moom nit xel xalaatu ko sax te moom jàpp na ne wàllum injustice da koo yàgg di xeex ñooña def loolu tamit giri ñaawlu na ko parce que jàpp na ne la ñu def waru leen tey suba waxi noppi ndax am nañu ay mag am ay papa ami yaay am ay bàjjan ak ay sœur na kon loolu la def moom daa jàpp ne dara gënu koo ñaaw yemu ca de moom Gris Bordeaux ndax nee na jamono dañ koy takkal loola nee na booba moom mu nga ca tilbinaar ba di jàppale mbër ma nga xam ne nii moom la yoon teg loxo muy bébé Saloum nee na ca loola la nekkoon di ko wutal koo xam ne ab avocat la bu ko fas yéenee layal ca la nga xam ne moom la ko yoon di toppe kon moom yëgul géntul waaye na du bàyyi mbir ya mu sedd ndax nee na moom loo ci mën a dégg bu jaree plainte sax dana ko ca def mbër ya nga xam ne tamit jàpp nañ ne bu fekkee ay mbër lañu te ñu tudd leen ci mbir yi ñu nekk ca Gris Bordeaux jàpp na ne ñoom seen association danañu teganteeg ñoom ay daan maanaam xamal leen ne daal loola duñ ko bàyyi mu sedd kañ ko jaawaleel tamit giri na xam naa ko ab moniteur la bu yor ab sàll nee na itam nañu bàyyi ku ñu gis rek say loxo dijj ñu ne la daal mbërum làmm ga giri na déeréet am na ñoo xam ne rëy ñuy loxo ba mbëri ba ëpp mbër yee te duñu ay mbër tey suba waxi noppi giree wax démb daal ba ne xaaw fa nga xam ne moo di ca Equivox ba tey bu ñu continuer dem record lan fay fekk moom ñii moom maanaam seeni mbir daa mel ni ministre ba daal yokk nga nga xam ko bénéficié wu muy Gris Bordeaux man doon wax léegi Eumeu seen ak Bombardier ndax ku ne xam ne ne ñoom ñett ñii moom maanaam seen at jeex ci làmb la jege woon ginnaaw 45 ans yi nga xam ne moom la ñu wax ne ku ko am jeexal waaye daa mel nag mbir yi bu rombee fafa moom dana nekk ci ñoom la nga xam ne nii moom moo di aw kaañ record a xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne record xëy na wax nu ko muy Bombardier ma nga xam ne nag moom war naa dem fa nga xam ne moo di ca Pologne ngir fas yéene jongante ji ka combat ba nga xam ne moom la fas yéene jongante ca MMA ba yëglikaay bi xëy na ñu xamal ne daal Bombardier tey jii ci àjjuma ji lay jël la nga xam ne moo di bii saam waajal digganteem mag Podzonoski fa nga xam ne moo di ca Singapour kon Bombardier ñu koy ñaanal ndam fa nga xam ne mooy ca Singapour waaye ñun itam am na droit ñaan ndax yàllaa ko waxoon xulle ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen kon bur yàlla ñun li nu lay ñaan mooy la nga xam ne moo xew ci réew mi fan yii te xamuñu ko tàmm tàmmuñu ko muy violence rayante ay bakkan di wadd deret di tuuru ñuy yàq matériel yi jàmbur yàlla na fi jeex ñi nga xam ne nag ñoonu jiite di nga xam ne mooy pouvoir bi ak ñi nga xam ne dañ ñoo bëgg a jiite muy opposition bi nañu jàpp ne gënu gënuñu nu ndey ñu nu bàyyi ba bëgg noo jàpp en otage di nu manipuler di nu def loo lu leen neex te itam ñoom boo xoolee xulle ba ca biir seen dara du ca bokk du seen doom du seen mbokk du seen dara kon sénégalais yi nañu ànd ak seen xel bu baax a baax a baax a baax jàppante nañu ah oui bon saf na Jackson. voilà mu nekkoon revue des titres ñëw nag ci journal suñu làmb Babacar ci xëtam bu njëkk tey mu dooree ko euh, combat bi nga xam ne Pape Abdou di dina ko fixé diggante Papa Sow ak Siteu premier mais daal dafa mel ni moom lañ jàpp premier août pour 2021. premier août waaw waaw bi daaw avril lañ ko waroon bëri suma jumla cinq xaw ma ci lañ ko waroon bëri far corona bi ñëw yaakaar naa tey suñu toogaatee ñu dem di dem ba ñu ne ah promoteur yi nañ jël ay date ñoom moom mu jël datu premier août. Mhm. defe naa itam lañ koy ñaanal yàlla rek mooy la nga xam ne moom moo amoon daaw ba tax combat bi tëgguñu woon ko yal na fi loolu jógee ba mu mën ko tëgg date bi mu jàppaat muy le premier août ndax combat la boo xam ne wax dëgg yàlla euh, derby la derby dëggantaan la

production moom itam taxawal na le 27 juin. waaw fay production moom tamit di koo xam ne nii moom it ñëw na si làmb fas yéene bay waaram parce que tamit tëgg na ay combat espoir yoo xam ne defe naa ne ah, képp ku dun làmb tamit xam nga ne combat yi te xam mbër yi xam nga ne ay combat yu jaadu la. combat yu tege ci aw yoon la. kon fay production daal moom itam ñu ngi koy ñaanal li nga xam ne nii moom la sumb. muy le 27 juin datam bi yàlla na ko réussir. parce que loolu la ñuy ñaanal promoteur yëpp ah, ami kenn amul seen fay parce que ñoom ñooy bayaru làmb ñoom ñooy génne ay millions di fay mbër yi kon fay production la 27 moom itam la jàpp. te muy dëgg waaye ba tey rek eh, làmb ji dafa am ñoo xam ne daa am weer yoo xam ne da leen di jig ñu mm. ñëw ci ki nga xam ne moo di Eumeu Sène moom daal dafa moo jig laa yam ci biir làmb ji <laughs> ah waaw yéeg liggéey bi de def na taxaw seetlu boobu tey dana daal moom jig na ko gagné na si ñetti combat waaw muy loo xam ne ah ay seetlu la parce que tamit làmb xam nga dafa am ay seetlu yees yiy def mbër mi dañuy seetlu mbër xam naa moo tax tey waa sunu làmb comme ñoom tamit wax dëgg yàlla ay professionnel lañ ci milieu bi rawatina làmb xam nañ ke bu baax baax yàgg cee bind ñu seet lu jara bàyyi xel la te itam nañ ci bàyyi xel mois d'avril mois bu mu yàgg am ay ndam la moom Eumeu Sène ndax am na ci ay ndam yu yaatoo yaatu mm, mm. waaw yaakaar na ne waaw waaw Lac de Guiers bi mu war a bëree mm-hmm. su ma jumale si mois d'avril la ko daanoon yaa dégg mm-hmm. kon defe naa ne ah, euh, waaye nag tekkiwul nekk tamit est-ce que saa yu ca day am ndam <laughs> loolu moom dañu yónni yàgg rek bàyyi ba la 4 avril ba xam ndax bi yoon lag day nangu avril bi ci moom wala ëmb day continuer gérer avril am. dëgg la waaw waaye ba tey tamit mu am làmb loo xam ne da koo baaxoo. Mhm. gars bu ñuy woy dafay baax mbëri di bàkk supporters yi jóge fee. Euh, di leen di di leen di kii tàccu. muy neex mais waa mbayang lum tamit daal dina àddu ci li ni mel daal. vraiment nekk ci biir làmb di woy am ku a tàccul amoo ku la feccal waa waaw loolu kat daa neexul moom mm-hmm. woy moom bu ko déggee mm-hmm. ak tëgg ak yooyu mm-hmm. faaw am ku koy fecc am ku koy tàcc waaye nag ami boo nekkoon fii tey di wax nii sax te kenn du la seetaan bu yàggee léegi dootoo nga toog sa kër kon lu mu mën a doon lu ne rek dafa am foo koy ñoo koy jox ñu war ko recevoir bokk na ci woykat bi nga xam daane si biir làmb di woy wax dëgg yàlla faw mu gis ñuy tàccu faw mu gis ñuy fecc te mbayang nag wax dëgg yàlla yàlla dimbali na ko ci loolu moom mbayang moom bu ne taat baatam bi commencé way mm-hmm. ah, ndax man mi sa kër xaw na ma yóbbaale parce que gis naa benn yoon mu mu tëgg non bu mu tëgg mbayang woy ko mais lu neex keroog loolu <laughs> bis boo ci duggee bis boo ci duggee xam nga doomu séréer nga bis bu la yàlla na ba nga dem ci làmb ju mbayang di way moomu di ko tëgg wala moor ngoom di ko tëgg bu keroogee boo yëngu doo ko tey <laughs> parce que ami Diouf nga sant defe naa ne kon nag <laughs> waaw waaw séréer séréero def voilà kon du mën a ñàkk <laughs> voilà Babacar bu ñu jógee foofu ñu seeti nga xam ne moo di Père Bécaye Mbaye mhm. àdduna nag ci euh, yi nga xam ne jot na ci am euh, gros bras yi nga xam ne dañ ciy tudd mbër mu doon loo xam ne daal mi ngi koy ñaaw ñaawlu waaw parce que moom li mu gis li mu wax dëgg la mhm. nee du ku ñu gis rek jàpp mu rëy loxo rek ñu ne mbër la waaw <laughs> ah, déedéet nag loolu mënta ne parce que am na ñoo xam ne saal yi ne Sénégal kenn xamul nu mu toll mhm. te réew waxuma la Ndakaaru de département yi wala commune yi sax am na ay salle de musculation est-ce déglu ma la te ña fa ne di musculer nu ñuy toll dañu nekki gros bras duñ mel ni Babacar wala Ami mm-hmm. nekkul na ñoon ñëpp ay bër lañu mm-hmm. ñooñu xëy na ñoom ñoom ñooy nekki ay nervi xaw ma nag luy lu luy baatu nervi man xaw ma ko sax lu muy tekki mm-hmm. waaye xam naa daal warta nekk lu normal nit ki nag am nga du wàllu wàllum garde rapproché nag loolu nit la mais li Bécaye li suñu papa Bécaye wax dëgg la du ku ñu gis mu rëy loxo ñu ne mbër kon na gars yi bàyyi bañ a jaxase boobu yaa ngi dégg bu fekkee tamit am na ay mbër yoo xam ne tamit ñu ngi ciy dem nañu xoolaat mbir bu baax a baax a baax. la waaw euh, balaa may jàll ci journal record damay ñëw Equivox dem seete woon nga nga xam ne moo di euh, Gris Bordeaux xam ne dañ ko tuddoon ci manifestation yooyu tamit. waaw dañ ko tuumaloon te mm-hmm. olof na ne weddi tuuma doo ragal mais sagal sa der la defe naa Gris bi mbir yi amee am. Mm-hmm. parce que man bi ñu image yi dawee. Mm-hmm. ñu ne Gris Bordeaux la Gris Bordeaux la fii lañ ma wooyee yaa ngi dégg mhm. fii lañ ma wooyee ne ma Gris doo ki ma woo bi ma wooyee tamit parce que ami looy wax si nit na ko xam dama ko wax lu leer dama ko ne ah man di Gris Bordeaux bi ma xam mhm. xam ko muy bëree mbapat ba tey nii mhm. ak personnalité bi ma xam si moom est-ce que Gris Bordeaux ñi mën naa dem ci ay manifestation naan day nekkal nit góoru bara wala ab nervi ma ne ko yaaka gëmuma ko mu ne ma noo ay photo ma ngi nii ma ne ko ah baax na ba ma gis ko yónnee ma ko par la suite ma woo Gris Bordeaux mais ba ma ko toppee itam defe naa Gris Bordeaux jamono jooja mu nga tel bi naaro Pikine di jàppale mbër ñu wax Bébé moo tax nag dem mu lu leer naññ la mu wax ñëpp dégg nañ ko Gris Bordeaux mu wax dëgg yàlla ku ko xam yaakaar naa ne ak na muy dunde nit ñi mu ñu koo naan ko kaay nekkal ma Gris Bordeaux dëgg la te dafa doon royukaay nag waaw te itam nag wax dëgg yàlla xam nga li ñi jaawale gis nga tey benn El Hadj Diouf symbole la ci Sénégal ca la mu ne parce que daf ci wane boppam ba àddina xam ko mu siggil ci réew mi ba nekk deux fois Ballon d'Or Gris Bordeaux la mu ne la ca tey caw ci làmb rawatina écrit ba mu bokk muy faas parce ku ñu la yaa doon mbay gi ak tafaa gi def naa war nga am jomb benn taxawaay bi mhm. Sadio Mané foofu la ne Ami Mbacke Thiam def na mhm. loolu. ku nekk ak fa nga moomee mhm. suñu papa Bekaay Mbaye ñuy wax tey ci làmb ci reporter lool le roi des arènes Modou Lo noonu la mel Balla Gaye noonu ku nekk ci ñoom ca la nga ne am na loo ca ne mhm. kon nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy politique nañ encore une fois bu ñu jàpp ne mbër yi du ñu ay dof mhm. ay nit njaay lañu ay nit lañ de mhm. ñàkkul nag sax mbooloo moo dem nag di nga fa fekk benn waaye bu mel ni Babacar <laughs> mu ñàkk fayda xamul la mu bëgg xamul la mu bañ lees ko def maanaam daal day yori non day am fépp la am jikkooy xob yàlla nañ ci yàlla musal ami fu la ngelaw fekk dugal la ci pax te ngelaw saa la dugalee ci pax mhm. génn la fa du yomb yaa ngi dégg waaye du mbër yëpp a mel am na mbër yoo xam ne c'est des responsables yaa dégg mhm. am na politiciens yoo xam ne tamit c'est des responsables du politicien yëpp a bon encore une fois waaye am na ci politiciens yoo xam ne tamit la yàlla xam doy na waaye nag nañu xam ne moomuñu nu nag mhm. ami moomuñu nu te moomuñu réew mi ñoom minorité lañ ci réew mi par rapport ak ñun fi mu nekk nii liy na rafetul te pour man sa intérêt moo la tax a jóg. dëgg parce que doo ci gis sa doom. doo ci gis sa jarbaat doo ci gis sa dara. Mm-hmm. ay bakkan nag ci te ay nit a ngi ciy dee ay doomi baa dollo ñoo xam ne dawalkatu jakartaa boo xam ne baayam moom la yaakaaru ñu dóor ko bal mu dee. apprenti mécanicien mu dee. bakkan ak ni mu foore li yàlla wax ci rey bakkan ñu ay nguur wala ay pouvoir wala ay cër wala àddina tax ñuy mm, namm di rey ay bakkan nañ ñu dimbali yàlla tax. Mm-hmm. nañ ñu dimbali te yàlla tax borom réew mi nag moom la ñu dénk suñu réew lii itam war na ci def intervention en tant que président parce que moom mooy le chef suprême des armées moom mooy la chef de l'État Macky Sall mu neex mu naqari moom la fi yàlla teg mu war ñu jiite ba ba ñuy ba ko fi yàlla yi jëlee. la bu ñu jógee foofu rek ñu jàllaat ci làmb ji ba tey Babacar euh, âge de retraite bi ñu defoon ko 45 ans waaye mel ni rek ministre euh, waaw mu mel ni loolu kon dina avantage si Girek Bombardier ak Eumeu Sène parce que ñoom ku ne xam ne seen at mu ngi doon waaj a jeex ami mm-hmm. ah loolu nag moo lay wan ne kon sport bi daal. Mm-hmm. Euh, liñ fi bëgg mooy yow yaay dem ba sentir ne mënatoo ko rek. nga bàyyi parce que defe naa sport de combat moom. individuel la. ku nekk waaw kenn du la fekk ci géew la buuxle. comme que sa doole ngi rek mën nga nga. Ah, waaw waaw boo ko yëgee waaw. dëgg la ah. ba tey rek ci bombardier moom nga mujjee moom dina jot visa am ne ni tey dafa mel ni. waaw pour dem ci Singapour xam naa visa bi ko war a yóbbu Singapour. am mu jëm ci au combat MMA digganteem ak kon ñu koy mm. ñaan la yàlla rek yàlla na ko ci yàlla may ndam. ci MMA boobu nga xam ne moom la jëm. amiin voilà Babacar xibaar yi fa lay jaaree ndar keppe looy tàggatoo waaye Babacar sa lunette yi sa mbubb mi tey man daal lii moom lii moom tudde naa la ko xam nga <laughs> la ko li ma la waxoon ñoom Cheikh ak Ndeye ma leen di remercier di leen ñaanal jàmm xale yu set loxo mën a ñaw lool waaye lunette yi moom comme ni ma ko doon waxee rek nee yëpp dégg nañ ko Lamine Seck Lit mm-hmm. TV sama cheikh boobu nga xam ne yàllaa ñu boole te duy caaxaan yàlla nañu yàlla musal cat ak làmmiñ moom moo ma jox lu net Euh, defe naa nit jox la mbir na ku ko gis ne rafet na kon lam la jox lu baax la kon Lamine jërëjëf mhm. mais di la jaajëfal équipe di la encouragé ah, gis naa effort yi mhm. donte que metti na terrain parce que ku xam ne ne fan nekk journaliste di wàcc ci terrain bi def ay mhm. reportage la mais mais ñu lay ñaanal yàlla rek yàlla na la yàlla muccal bépp confrère bu nekk ci bi muccal bépp doomu aadama parce tamit nit ki moom la ma la waxoon fii ca début ba rek loo sonnul doo ca gis njëriñ kon coono boobu yàlla na mujj a nekk njëriñ di la encouragé bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm téléspectateurs yi euh, loolu Equivox TV lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ leen ko faram fàcceel fii la ñuy daal di yem ak ci xibaar yi di leen jox di daje ëllëg incha allah.